maa ñëw indi leen ay leeral ci vidéo bii ngeen jàkkaar lool ndax njuumte dafa am ci vidéo bii ndax dafa bari ay militant Pastef ay farandoy usman Sonko ay sympathisant Ousmane Sonko dañoo gis video bi jàpp ne vidéo bi Samba la te kii ci vidéo bi du Samba Ndiaye loolu ci lañ leen bëgg indi ay leeral ndax Samba Ndiaye bi ñu ko nomee ñu baree baree bari biñ gisee vidéo bii jàpp na Samba njaay la la seen xol tànk mënuñoo wanaasu nomination Samba Ndiaye bi di xataraayu waaye njuum te daf ci am kii ci vidéo bi du Samba Ndiaye kii ci vidéo bi Abdou Ndiaye la tudd meeru Kër Màbba la Abdou njaay APR la bokkoon wala APR la bokk Abdou Ndiaye la meeru Kër Màbba waaye du sàmm Ndiaye Samba Ndiaye nag nekkoon na ci benn bokk yaakaar bàyyi woon na leen avant élection présidentielle ñëw ci coalition Diomaye président vidéo bi dafa am ñu bari ñu koy partagé di si commenté jàpp ne Samba Ndiaye la alors que du Samba Ndiaye kàddu yi nga xam ne nag moom ngeen dégg ci vidéo bi ay kàddu yu ñàkk worma la loolu moo tax waa Pastef ñu ci bari jàpp ne Samba Ndiaye la ba kàddu yi yëngal leen ba mënuñoo wanaasu nomination Samba Ndiaye mbir mi noonu la demee kon ngeen xamee ko noonu ngeen partagé ko ba ñëpp man see jot léegi nag département Mbacké département la bu am solo ci wàllum politique fi mu ne nii nag maire yi nekk ci département bi bàbbeeku nañ dem jàppale ji Pastef ci élection yi sans condition département Mbacké seize communes la quatorze communes yi quatorze maires yi Ousmane Sonko recevoir na leen ci ay xibaar yeneen ñaari maires yi des dañoo dem voyage te joxe nañ seen kàddu ngir jàppale Ousmane Sonko sans condition ñi nga xam ne Ousmane sonk recevoir na leen am na ci maire boo xam ne Amadou Ba investir na ko fii ci département Mbacké département Mbacké dafa nekk département bu am solo ci wàllum élection ndax électorat Sénégal cinquante pour cent yi ci ñetti région la nekk région de Dakar région de Thiès région de Diourbel région de Diourbel nag buñ koy wax ci wàllum élec électorat département Mbacké moo tax te département Mbacké dafa nekk département bu am solo ci ay élection ndax électorat bi te élection législative yi département Mbacké juróomi député la waaye am na nooy gañee département bi sa liste nationale mën ngaa jëlaat lu toll ci juróomi député ci liste nationale bi ci sa dépend ci ni ngay gañee département bi léegi nag ñi nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko ñoom élection locale yële weesu gañewoon nañ département bi ndax département Mbacké boo gañee commune bu Touba rek ak nga gañee ko gañe bu am doole même boo perte yeneen commune yi nekk ci département bi man ngaa gañe département bi élection présidentielle yi passé ñoom Ousmane Sonko ak Jomaay dañoo gagné département bi gagné mbooleem bureau de vote yi nga xam ne ñoo nekk fii ci commune bu Touba te département Mbacké bu ñu koy wax électorat commune Touba moo tax léegi nag bi nga xam ne maire yi nekk ci monde rural bi ci département Mbacké biñ daawul jàppale Ousmane Sonko la Ousmane Sonko ñi mu àndal doon gagné département bi léegi nag bu dee ñëw ñëpp bàbbeeku nañ ñëw ne Ousmane Sonko la ñuy jàppale sans condition loolu mooy élection yi amatul suspense amatul tamit enjeu au niveau du département de de Mbacké ndax maire Touba di Abdou Lahad Ka moom taxaw na ne dina def lu man pour liste Pastef bi gañe Gallo Ba maire Mbacké taxaw na nee na lu man dina ko def pour liste Pastef bi gañe yeneen communes yi tamit engagement boobu la ñu jël ci kanamu ci kanamu Ousmane ci kanamu Ousmane Sonko. am na ñeneen ñoo xam ne ay yeneen kuréel ak yeneen association yoo xam ne ñoom taxaw nañu nee nañu Pastef la ñuy jàppale ci li nga xam ne tey mooy élection législative yi léegi nag am na ñu bari ñoo xam ne li ñuy wax mooy ñii dañoo transhumé waaye dafa am loo xam ne Ousmane sonk muy jomaay mënuñ ci dara ndax su dee nit moo jóg na la sans condition damay ñëw jàppale la kooku mënoo ci dara te kiy ñëw di la jàppale dégg na sa discours boo def sa discours bi nga def mooy képp koo xam ne yaa ngi ànd ak ñun bu sa loxo taqee wala nga luubal ci yoon nga jëm yow mi jóge fële ñëw ànd ak ñun boo ñëwee bu say loxo taqee danañ la yóbbu fa mbax na doonee benn maanaam duñ protéger duñ protéger kenn léegi nag duñ protéger kenn Macky sàll waxoon na ko fi te jëfewu ko léegi nag ñoom Ousmane Sonko ak wax nañ ko li ñu wolof njaay naan nañu yónni yàgg nañu yoon yónni yàgg ndax démb président Bassirou Diomaye Faye waxaat na ko nee na ak foo mën di jóge amul xaaj yi amul seen képp koo xam ne def nga naka su noonu ci alalu réew mi dañ lay traduire devant la justice ba ci moom ba Bassirou Diomaye Faye noonu la ko waxee kon xaalisu réew mi Sénégal yi ñoo ci warta am masla ak foo mën a bokk àndal ak Sonko ak nekkal ku àndoon ak Macky Sall ak képp ku ñu jàpp ne dangaa luubal alalu réew mi danga ko war a danga ko war a leeral